waaw salaamaaleykum nuyu nañ leen baax a baax nuyu nañ leen di leen ziar wér-wér di wax ngeen ngi si bu mag bii di Diagnifcas di abonné di sem waaw farlu leer lépp di xew fa la lépp yi xewe li ñëw gudd ak liy bëgg a ñëw lépp fa lañ koy joxee ci kàttanu yàlla waaw nga dee wax ne yéen ñuy seetlu moom képp koo xamante ni maanaam woo nga ma jotoo ma nga am bàyyi na message numéro Tigo bi 76 349 24 99 waaw booba léegi nag xam naa damaa xamoon jàpp ki jall jàll semaine yi jall yëpp dégg naa gars yi damay ñaan Barcelone waaw temps yi dugg fi génn fii boobu ay max yu bari ñu ma ci kii waaye xam ne nag yi damay xaw japp waaw kay class bi nag boobu léegi na mo la ma gars wax class bi ñu jëm suba le 16 inshallah rabbi waaw kay légui mo avant tout mo ma maa jëmi catalan yi ci bopam wa Barcelone mom li wara wax ñom amuñu amuñu problème mu Europe fi mu Barcelone fa pay ay joueur kenn ëpp fa ay qualité joueur waaye de ab kursu ngeen amul ndax moo leen am kursu koo xamante ni maanaam ab kursu la kursu la boo xamante ni ci équipe naar yal ne woon demoon équipe ba fa gën a baax mu ko doon kurse jël fa ñaari coupe bi naar ngeen jël ko di ko kurseloo amul xam-xam mentalité bi nekk fi heure bi waroon na kaa fekk safi heure bi ci ay xitaa fekk yooyu la woon fekk mu ko yor moo yàq seen club bi ba jamono ji ku ne war a Barcelone Barcelone normalement ren ji woo naa suyee ba mu jeex du am moom championnat sax boo moytu ngeen dem deuxième division ndox amul amul mentalité bi

kuy keneen gis nga Franck kese ni mu mel ay ñoom Franck Deyong ñooñu ñëpp niñ mel xamante ni militaire bi dëgër mais xalaatuñu na teg ndax équipe bi Espagne bi day kàttal ak daanaka club bi ku dul espagnol du fi suyee. loolu moo tax ne moo ko nar a moo moo tax Barcelone na dem ci nërmeelu gu méttee méttee waaye Barcelone ren défaite wur ko woon a am ren défaite wur ko woon a am léegi nag bu dee na jëm ci classico ba moom méttiwul classico ba moom ba Barcelone yurtu noonu benn joueur benn joueur bu ko ci kàttanu yàlla mooy dóor Real Madrid loolu moom maam classico bi moom méttiwut waaye ñun moom suñu baax mu mënuñu xam ci Real Madrid ndax Real Madrid ñun buñu baaxee ñoo koy dóor buñu bonee ñoo koy dóor buñ laqaj-laqajee ñoo koy dóor lu ci mën a xew ñoo koy dóor léegi nag kon ma ma ba xam ne fi mu toll daal li ñu leen xamal mooy course yu ngeen di wër di wuti ñoom Thomas Tuchel lañ yi mais bu dee pour l'instant moom course amoo leen ko course amoo leen ko baax a baax ngeen ngeen ngeen xam ne ko ngeen xamee ko noonu léegi nag moom classico bi maa ngi jox gars yi suba dañ koy dóor ci carton yalla amuñu problème boobu am nga Real dama yaxna luñ def dóor ko luñ def dóor ko du doon luñ xol de waaye ci sportif la ko tek nekul luñ xool nekkul dar nak nekul dara waaw waxuma ben engagement ni Barcelone da koy gagne far force waaw waaye Real Madrid da nga Barcelone da ka yeb yeb go xamanteni bu defé bu defé bu waxut bu waxut lepp da koy dóor waaw kay bu dee ñun mom suñu bax mu ñu nga xamé ci Real Madrid waaw kay ndax ñu lu ci man xeeru xéru koy dóor lu ci ëpp waaw course daal ngay wóotam wuti yéen kat laay te buñu ma sonal ci max yi taay daa wàññi ci max yi waaw damaa wàññi amu jotu max yi nag la amutut waaw kay. waaw sëñ bi lii ngay génne lan la. lii ak càngat la goo xamante ni maam li muy àndal moom la dugg nii lii ngay gis nii ay rab la ci càngat gi lii ay paaka la ci càngat gi la bokk lii ay lenset la ci càngat gi la bokk lii ay puso la ci càngat gi la bokk. cangat gi képp koo xamante ni yàlla def na nga cangatoo ko Macky Sall mii nit ñi sonal bu ko cangatoon ku ko laal ñu rob la yàlla xam na ku ko laal ku ko jege tudd ko te arrêté leen ñu rob la bàqee cangat gii sëñ bi cangat gu doy waar a ngi nii maam moom maam dugg mii nga gis nii maam lii lépp lu dansé la fi lii ma ci dugg nii lépp lu dansé képp moo nekk ci biir ndugg mi fi doon lépp lu lenn lu woyof nekku ci ndugg mi képp ku ko ku ko cangoo cangé bi maanaam ay fan yu bari lay doon képp ku ko laal boko laalé laalee nit béywut sam non bis bu la ñu rop yalla yàlla xam na ko jërëjëf waaw ba tey lii nii ci cangat gi la bok ci cangat gi reen yi cangat gi ne wax rek képp kuy jema a dëgër dëgëru bay ne la laal bis bu ko defee ay mbokkam dañu maam kañ la bisu dëj ko koo numéro bi no 76 ngay def 349 24 99 lu seer la nak jëmi cangat gep gep gëna ba lu seer la lool sax jërëjëf